wa saxbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi sant yàlla julli ci sayidna muhammad salallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq fas yéene àndaat ak rek ci jataay yu am solo yi nga xam ne mu assasatul wafaa bi xuququl imaan moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin comme ni ñu ko baaxoo ak yéen rek ci bis bu njëkk bi ba ñuy bala ñuy joxe programme bi ak dalal ki nga xamante ne moo fas yéene ànd ak ñun tey ci bis bi nii ak ci ban waxtaan la war a ànd ak ñun dañuy njëkk a jox kàddu gi rek sëriñ Abdou Samane Mbacke mi nga xam ne miin nañ ko ci jataay yi te at yi yëpp ñu gis ne saa yu ñu tàmbalee jataay yi moom mooy ñëw euh, tijjil ñu ko ci ndigalul sëriñ Basiiru Anta mi nga xam ne moo ko baaxoo daan tijji waaye mu jox ko ci ndigal mu wóote ko ci jataay bi ngir tijjul ñu jataay bi ñaanal ñu tamit suñ borom àggaleel ñu ko ak alhamdulillahi rabbil alamin ni ko tamit moom lañuy ñuy ànd ak jataay bi moom dañuy ànd ak moom jataay bi yëpp ci weeru koor yëpp kon ñu ñaan yàlla guddal fanam te li nga xamante ne moom la yéene liggéey ci lislaam ji yàlla may ko mu àggale ko fu koy ñottam kon dañuy jox kaddu gi rek sëriñ Abdou Samane Mbacke su ko defee mu indi kaddu yi nga xamante ne moo bàyyi ko ci kilifa yi jaare ci sëriñ Bassirou Anta jóge ci sëriñ Abbas mi nga xamante ne moom mooy toog toogaayu jataayu borom Daaru Muxti tey te lii ñu koy def ci ndigalam kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Samad Mbacké rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi ishrah fi dawami sadri sharhan bihi akun misla badri akshifu duja qalbi ya khadiru ya mulu tadbir wa taqdir ij'al kitabaka kunusi alim wa liyab ma faqa dhanni min ulum allahuma la sahla ila ma jacaltuhu lana sahlan subhanaka in chita jacalta saaba sahla allahuma la ilma lana ila ma allamtana innaka anta alimul hakim salaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokk yi jullit yépp ñoo ngi ndokkeel mbokk yépp ñoo ngi siyaare ñépp di ñaan ñépp jàmm di am mbégte ak cant ci suñu borom subhanahu mu ñu baaxee woon daaw ñu teewoon fii jottali kàddu yu sëñ Basiru moom suñ moom maam ñu demaat ba def fukki weer ñaar bu baax waat ñu teewaat fii di jot jottali ay kàddoom kàddu yi dañoo baax woon saa bu ñu ubbi sëriñ Basiiru moom moom Cerno Ibrahima moo daa ubbi jataay bi bu ñëwee bay tëj sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdou Xuruus tëj jataay bi waaye yàlla suñu borom tabaaraka taala doo dugal coono yu koor gi tax sëñ bi ak cawarteem ci ñëw di fi teew yombatul mu jox ma ndigal ma ñëw di ko fi teew ndax lu xew nga teewe ko suñu borom doo ko man te àddina ku fi yàgg tële dara ci turam lay waxee turam laay nuyoo mbooloo mi sant bu baax muassasa bi ci turu sëñ bi ci turu sëñ Abbas xam ne lii nga def moom mi ngi koy defal mu ngi leen di bàyyi xel mi ànd ak yéen ci ab xolam mi ngi ànd ak yéen ci jëfam mi ngi ànd ak yéen ak ñaan ak ñaanam lii daa bokk ci liggéey boroom Daaru Muxti xam diina bàggal di ko xamle dafa bokk ci li ko Sëriñ Tuubaa santoon mooy liggéey boo xam ne ki fi nekkal maam Cerno Ibrahima moo ko war a taxaw kon lu ngeen def rek moom ngeen ko defal mu ngi leen sant bu baax di leen ñaan bu baax ngeen tàbb ceeg bismillahir rahmanir rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin man nag jotaay bi ci boppam dama cee jàngat ci ay njàngat yu am solo jàngat yooyu moo di sëriñ Touba ku mu jëg dara ëllëg nga war a rafet njort ndax jataay bii bokk na jataay yi mu digoon maam Cerno Ibrahim booba sëriñ Touba mi ngi Mbakke Kajoor taalub maam Cerno Ibrahim fay ñu fay ko ca Mbakke Kajoor mu lu ko naqare lool sëriñ Touba ne ko demal taalaat continuer jàng da nga taal taal yu tàkk yoo xam ne taal yooyu tàkk duudu fey nag yàlla yaakaar naa jataay bii ci la bokk kon Sëriñ Tuubaa ku mu dig dara ëllëg sama xel war a dal ndax la waxoon maam Cerno Ibrahima ñun ñëpp teg nañ ñu bët loolu mooy jàngat bu njëkk bi njàngatum ñaar boo di ne damaa seetlu ne mu assasi bii ci daara lañ jóge doomi daara lañ taxawal dara loo xam ne seen intérêt nekku ci seen njariñ nekku ci dañ ko def ngir baaxe laa biir nit ñi ñu war a bàyyi xel ci ne dafa am yaar yoo xam ne nit mënu koo ñàkk te ku ko am ku ne sa bopp rek nga yëpp ci ñu ko am seen bopp lañ ko yéene mooy alal ak temps ñu gis ne ñu génn ci daara euh, doomi daara yi ñoom ñoo am tabek wax joxe seen waxtu ñoom tamit jox seen alal lii ngeen taxawal waxtu bu bari ngeen ci def ndax depuis daaw ñu ngi koy préparé kon passé ngeen waxtu yàgg yàgg def ngeen seen alal ju baree bari itam yéen ngi passe dem ak ñëw yéen ngi jokkal seen téléphone organisation bi xaalis bu bari laaj ko li ñu am te muñ boolewuñ ca kenn yéen boole nga ci boole ngeen ci askan bi mooy seen waxtu ak seen alal ñu ma ci jàngata tam ne ndeke kon daara mën naa jural nit nit askan wi lu la amal njariñ man ma sax man ma sax wax ne ñëpp njariñ ci réew mi ci Sénégal daar yi ma leen produire damay joxe misaal képp ci domaine domaine yu nekk domaine boo ma dem rek damay joxe misaal képp ci Sëriñ Touba boo demee ci côté diine diine li mu liggéey ci diina amul kenn ko liggéey ci ci diine fii ci réew mi tarixa bi mu sos muy tarixa muridiya ni mu ko organisé ni mu ko ni mu ko ni mu ko ni muy doxe ni mu ànde yaakaar naa ne at du mu tàgg benn gis ku gën a def def lu ma noonu mënut a moom mi ko tëral indi ko moom Sëriñ Tuubaa ci daara la génn doomi daara la demee ci côté culturel culture lim def ci culture xam-xam néew na nga gis ko def def génnul ci daara lim taalif ñuy téere kenn xam nu mu toll te it njariñ dafa bari ndax téere yu mu taalif ñi koy bind dañ koy jaay ñi koy jàng ñu leen fay ñu koy jàng te bu leen neexoon ay doom wala sëtam képp ku jaay téere Sëriñ Tuubaa ñoom seen wàll képp ku am programme jàng guddi lu ñu la fay ñoom seen wàll ñu jox droit d'auteur mën nañu ko fay nit ñi te fayuñu ko kenn boo ko jëloon tey photocopie ko du ko jaay borom sama jàppale yóbbu la ci yoon ne kon téere yi Sëriñ Tuubaa yi bi mu bàyyi fi muy bi ñu ñaa ngi ciy faj seen aajo di jor di ci dund di aj Makka te kenn ko aju ci ñoom niwul fay leen mën nangam kon foofu njaram Sëriñ Sëriñ Tuubaa foofu la tàmbale kon domaine culturel li mu ci def ci Sénégal amul ko fi def ba demee domaine euh, démographique mooy dëkk li mu ci def it te doomu doomu daal def ko kenn defu ko fi li fi sañ ci dëkk Sénégal amul ko sañ dëkk Sénégal jëlal Touba sab doon exemple ci loolu ne Touba toll li mu toll àgg fi mu àgg nekk deuxième ville yoon ci Sénégal doomu daaraa ko sos amul kenn ku mën a sos dëkk bu toll ñu gën a ci daal jël exemple ci dëkk bi ñu nekk mu Daaru Muxti mi ngi tël ci téeméer at ak juróom-ñaar lam lam moom moom Daaru Muxti génn wala Sénégal Sénégal dëkk ngeen gis dëkk boo xam ne am na téeméer at ak juróom-ñaar at toll ni mu toll àgg fi mu àgg ki ko sos doo daara la génn boo demee ci côté économique nga dem ci mbay mbay mi doomu daara ñoo ko yore yaakaar naa bu téew seen loxo ne bayatuñ yaakaar naa rim na taxaw boo demee ci commerce bi noonu boo demee ci transport bi noonu boo demee ci njaay bi noonu boo demee ci commerce ay gën a dynamique ëpp lu ñu jaay ak jënd dem ak Hong Kong dem Chine dem Taïwan di ñu ci daara lañ génn kon daara yi nekkee amal na njariñ askan bi xam moo xam askan xamuñu moo xam xam ne xamuñu nekk kon bu fekkee daara day jël ab donga ab ab taalibe yabal ko ci mbedd ni ko demal mu taxaw yor tam di yalwaan loolu jàpp ne sikk la mën naa am donc fa mu taxaw di yalwaan bureau ba fa nekk ka fa ne daara la génne jël ay employé lu ay dizaine nit deen fay par weer kon dañ bàyyi xel ci ne kon daara yi lépp njariñ ci nit ñi ci àdduna bi ci Sénégal ci ñoom lu ñoom lu jóge boo demee ci domaine bii muy muy médiatique dafa seen rôle dëkk bii nekk rajo bi fi nekk ki ko sos daar ci daar la génn ki ko jiite daar la génn demal Touba TV demal feneen boo demee ci organ yi gën a mag comme wal fajri groupe wal fajri kii ko sos daa daan génn mu sud la benn ña seen ko yàlla yaram kon demoon boo dem ci Sénégal rek doomi daara yi def ñu loo xam kenn defu ko fi kon nañ bàyyi xel ci nii ñii daara yi ñu ngi produit loo xam ne amal na ñu ñëriñ bu ñu jàppee rek yalwaankat li ñu génne kon loolu laa bëggoon a waxaale ci wax ji ci nuyub sëñ bi fàttali ko nit ñu ne ku leen jàppale ku leen jàppale itam war leen bàyyi bàyyi seen sago ku leen jàppale war leen bàyyi a xeex ñu ngi def li ñu man li am muy seen temps muy seen alal ñu ngi koy bokk ñu ngi koy bokk waa réew dëkk bi tey boo fanaan soon tey dëkkoo fi ñëw na salaam ko dama dama bëgg fu fanaan kenn dool demal gendarmerie kenn dool demal poste demal kër sëñ bi lañ lay wala demal demal ci malut ba kër sëñ bi ko sos daara li génn kon lépp njariñ ci nit ñi ci réew mi ñu koy def di ko jariñoo doomu aadam yi waa daar yi ñoo koy def kon jàpp naa ne daara lim produire ci lu aw ëppal nit ñi njariñ ci daara la génn kon kenn daara yi ay wagabo euh, lañuy génne wala yalwaankat bu fekkee ñu ngi yalwaan it am na ñeen ñoo xam ne ñu ngi liggéey loo xam ne ñu ngi tëg seen bët investissement li ñu def kenn defu ko fi jël alaj ji li def ci réew mi ci investissement kenn ko fi kon deke daara amal nañu njariñ kon ku leen jàppale doot war ngeen bàyyi seen sako kon daal ci baatu sëñ ab sëñ sëñ sëñ Bassirou Anta Niang ci baatu sëñ Abbas ñu ngi leen di sant di leen gërëm di xamal ne lii ngeen def yi moom moom ko defal mais ànd ak yéen ñu ngi leen xel euh, mu ngi lay mi ngi seen wet ci ñaan mi ngi seen wet ci jàppale fu ngeen nekk moom ne fa nekkal ñu ngi sant ñëpp ñu ngi bal ñëpp ak wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh